Faatumata man jaaxle naa noonu man damay bàyyi fan ci club bi noonu lu tax ngay bàyyi ak na am la noonu Faatumata hmm. fan ci club bi bi ñu nekkee di def suñu soirée sa yata yoto bi day fees di yàlla noonu hmm. nit ñi ñëw noonu léegi nag ay dara DJ Wuri dañoo bëgg xëcc ci hip hop bi noonu Fatoumata pël Fuuta nga pël Fuuta laa ñi fi nekk ñëpp ay pël Fuuta la nooñ mm-hmm. ana pël Fuuta ak hip hop noonu hmm. di jëwëri moo ñu représent moo ñu teewal fii Sénégal ñun pël Fuuta yi dañuy hip hop <laughs> ah na ala naan hmm. Fatoumata jëwëri jimboo lay nu rool eh man bàyyi naa noonu delloo leen ma sama cotisation damay bàyyi accu dimbali ñu yow ku la gis xam ne doo pël fuuta séeréer rek ngay nuróol su ñuulaay bu dër bii boo du séeréer di susu dama ne nga dem bokk ci mbootaay susu yi yow mayu suñu jaamuwaay <laughs> xewi xaal ak naa la naan di ngeen ko réccu noonu man bàyyi naa noonu ak seen hip hop des leen ak moom noonu accu yow da eh, eh, eh. oh, na masu de masu de eh yo <laughs> 랍기네 세력이네 너. 응. 멋지 랍기. doo dem soirée saa yaa taayeetu Colobane. fii rab Séné Guinée noonu moo fi am. ay Séné wax man waxuma boobu sax giita ŋaasu yaa ngi dégg. ñooñu mun ma déranger am na diir bi ma war a teg ak yow. après naa la nandal. wuri anga waɗa dil mi mi naatata hen mimi naata e nder dilon joxe moo tax nga def diir nga wax yow effaatuma de tam. diir xaaral ah denc mi mi naata bëgg a xam nu mu demee déglu. yow xam nga ne Sénégal kii ak maa wax Sénégal Guinée bi mu ko amee indépendance ba léegi. Mm. pour la Fouta est-ce que mut na nekk foofu président. voilà amul. voilà. jooni noonu mi concert mi jël grosse pointure rap. yaa ngi dégg mm-hmm. mais wada cotisation eh. lu ñu am foofu ci recette bénéfice ñu jàppale ko Seydou Dana Diallo pour mu gagné Guinée oh. yaa ngi dégg mm-hmm. ñun Pël Fuuta ñu nekk président eh. Guinée mu nekk république démocratique populaire de Guinée li ngeen di dajale xaalis bi ngeen di dajale dénk leen ma ko ba tee ko eh, mm. Fatoumata mene mm. mi wadata ɗum de an ka bitch men tottama kaalisi amen a kaalisi amen on minen min tottatama kaalisi eyi boma waha picci de wayo ke oppalu mimi alani picci min ko bitch mi wi dema wak yaw jiguen nga ah. min min kaalisi amen on waaw e e min mi wona guijamade mc bobo accu an wawi e mi accani e eh, kode eh, wuuɗi fansi club la ñun ñëpp ñoo ko bokk amul guidé amul tonton amul dara ñun ñëpp ñoo fi bokk yam eh, so amul koto amul dara waay eh. Akon P Square Mr. Maybe Convict Music First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we eh. stay in line. yaa ngi déglu sa musique bi rek nga ba tax dégg ko. am si boobu. hakkunde allah eh, non no wayi no marsude marsude e no marsude mais na no marsuɗani mc affaire man booba léegi yow wàcci woo ma waxu dara di eh. bi léegi dafa dokk bu baax a baax bu dokk man ah? man gisul guinéen nekk France ñu ngi yónnee kaalisu buy ñu ngi yónnee ay kaalis ñoom ñëpp ñoom Abdou Kadar ñoom Mama Diallo ñoom ñëpp yónnee nañ ah, kamɓe fof ɓe jooni ayi ɗum ɗo ko 10 mille bi jendal ginaar nga def foofu ndogu ndogu tan eh. jooni noon nag gine nag gine ma bëgg pikiir nag gine pikiir na ma eyo eh, <laughs> wuyma ah. eh, nga góorgóorlu noon wuyma mi alaa mi hay dam yo amul toogaay nga góorgóorlu noon jooni fof ɓe ɓe addi kaalis joni noon mbiɗa yaha anani goy a janngo eyyi yo masɓe seydina <laughs> ko ndogo ndogo bud ndogo boris <laughs> o oh, kona très eh, eh, bien eyyi eyyi eyyi tekkil sa li ma wax ak yow oh, bilal yaa ngi bëgg ñàkk fayda sa bitig bii nga bàyyi di daan sa doole topp musique bii nga xam ne rab ngay def te musique rap musique la boo xam ne message la message bi bu leerul kenn du dégg li ngay wax te yow sa làmmiñ bi daa tax kii nga topp nii dalay nax Bilal ndi ku baax yaa ngi maandu yaa ngi dégg ah? waaw yow yaa ngi woote diine yaa ngi addis yaa ngi jubanti ñi mhm. nga toog sa kër nga def boobu. waaw te yàlla dafa wax bu fekkee danga nga da nga nekk jullit. da nga war a maandu. yaa ngi dégg ah voilà un point un tour wax ah. nga dëgg waaye. dama lay wax rek dama lay dolli. gis nga waa ji da lay nax. Hmm? saa yu la joxee maa ngi koy gis mu yëkkati ñaar junni di la ko jox. bu la joxee ñaari junni na la lekkal ginaar moom xar lay reeree. saa yu la ko waxee nag. bu la joxee junni na la jëndal jën xama ne moom ginaar la reeree bu dee ginaar la xama ne xar la reere ma nga lay nax te nag alalu mbooloo dee leen ko soor alalu mbooloo ngeen ngeen yor de oh. loolu nag la am ci li ma lay wax ak kun yàlla dégg nga wax ji baax MC eh. Babou jox ma dix mille mu ndaw mu nekkee man doog a ginaar man doog kar. wax wax naa la MC booba sàcc la. gina yee yëpp jox nañ ko xaalis bi gina yee ñëpp ñëpp a ko jox. ah day jaay yëfu capable nañ dem. lépp yow la lépp ndax ba ma ne jox ma xaalis bu ma bañ. ànd ak moom mais accaane xay dara. MC Pop. ko galle maamiyano sa kër laa doon dem nii. eh defal na nga def musiwi. eh déedéet sa ah. kër laa doon dem dañ ñoo digal pour ñu def sadaka. MC boobu yow mën a fen anga fus yow foo mos a gis pour le Fuuta mu génne sarak. séeréer yi ñoo wax nañ génne sadaka séeréer yi ci koñ bi ñoo ñoo mobiliser ñoom ñëpp ñu wax nañ génne sadaka kan. yow yow nekk yow nekk banni nga saay saay nga. xam nga lan lan bëgg nga génne xaalis bi yaa ngi de yaa ngi dem Sandiniéry nga encaissé foofu dem nga Grand Yoff nga encaissé. rii maam jaara encaissé nga pour le Fouta yi ne foofu yaa ngi dégg. Pape Mbaw jaafatu banaana yi encaissé nga yëpp pa génne xaalis. mi mi mi jéem a ji oh, bi fii doo ko posé centimètre génnoo xaalis.